rahmatullahi taala wa barakaatu ni ko sëriñ Fallou Galas si la waxee rek nga kon maanaam jërëtul ñu ci dellu moo di sëñ bi ci boppam weer wu ne bu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent amee dana may bal ca jumaa ja ngir may yéene ci wax ne léegi nañ séentu weer te lu ci waay xam nga ñëw yëg léegi bu ko defee léegi bu buñ ko yéenee ba noppi dana bokk toog fii ak waa Muxaddamatul Xidma ñi nga xam ne jàmbaar lañ ci loolu lool bokk di séntu weer wi buñ buñ koy séntu woon nag ba nga xam ne fii ñu toll ci Sénégal di waaj a nodd te jokkoon nañoo gox yëpp te gisuñ benn gox boo xam ne wax na ne seen na weer wi ba ci commission Dakar bi yëpp jokkoon nañu ñoom la léegi nag booba lañ daal di jokkoo kër sëriñ kër sëriñ kër sëriñ Touré Cheikh Mouhamadou Mountakha ba yëgal ko mbir mi ba mu wax ne mbir mi moom ah, ci ci ci suñ loxo la ko teg moom day kilifa gi waaye ginnaaw dem nañ ba waxtu waxtu wi waxtu wi te gisuñ ko léegi kon mënees naa yëgli ne weer wi feeñut nga xam ne suba dañuy mottali fanweer fanweeri feenu fanweeri baraxlu yi ginnaaw suba kon ci àllarba ji di ñaar fukki fan ak ak mooy mooy benn fanu koor gi na ko na ko ñëpp ne weer yi feeñut feeñu fukki fan ak ñeent di fukki fan ak ñeent ci weeru weeru tubaab fukki fan ak ñeent ci weeru tubaab ginnaaw suba kon ñu xam ne mooy benn fanu ramadan kon nag ñépp waajal ko tey ñaan yàlla dimbali ñu ci ba li ci yàlla digle ak lim ci santaane lépp nu defe ne kon ni ñu ko bëgg am ci lim ci wut lépp lim ci wut lépp muy yërmaande ji ak ak njéggal gi ak ak ak lépp ñu am ko ci te te ñaan Seex Muhammadul Muntaxa mii nga xam ne moo ñu jiite mu yàgg fi lool ndax dara ñuru ko lu muy diine ak lu koy defar kon nag noo ngi ci ñaan mu yàgg fi lool ba lim yéene ci yéen mu àggale ko te naandu koog moom ci ci ci xol bu sedd ci dara